maman loo ciy sànni. man de amoo dara lu ma si sànni parce que daal Macky Sall daal nañ ko bàyyi rek ak yàlla loolu rek laa mën a li mu def xalifa Sall moo nekk nii tey li mu def xalifa Sall moo nekk nii tey moom la indi nii tey indiwul leneen lu di moom la indi bañ ma tuddee Demba Kandji rek laa xam ne jeex na bañ ma tuddee Demba Kandji ma ne na mu def Khalifa Sall rek lay defaat ni kese parce que kenn óolu jërëjëf comme nañ comme jërëjëf comme lañ ko leen ko waxee rek gis nga citoyen yi nga xamante ne fekk nañ fi nga xamante ne mooy palais euh, de justice de Dakar ñu sànni seen kàddu gannaaw bi nga xamante ne nii publier na résultat yi nga xamante ne Macky Sall moo nekk ci kaw ñeneen ñi topp si Idi topp si Sonko topp si après monsieur euh, Issa Sall euh, Madické Niang nag mooy cinquième ji moo jël cinquième position